kii di le premier ministre Ousmane Sonko aussi euh, moom. nga kon euh, ñu xaar en attendant euh, ki nga xamante ni mooy Sonko génn su génnee. Eh, ba pare eh, d'après information yi ñu am ki nga xamante ni mooy eh, Sidiki Kaba mooy def li nga xamante ni mooy la déclaration de press mais li ci mënti am rek restez connecté sur Bour News vous aurez toutes les informations nécessaires ñoo ngi génn xam naa membre de membre Kaba waaw ñoo ngi noonu wàcc na si euh, Siri Kaba wàcc na moo ko Ousmane Sonko ngeen di gis noonu euh, ñoo ngi noonu di wàcc. dafa mel ni fii lañu kiiwee Là. Oui. Donc on va le faire ici, c'est bon Alors, monsieur le premier passer par le sortant, s'il vous euh, la passation de service avec votre successeur. Comment vous l'avez vécu Nous venons effectivement de procéder à la passation de service avec Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Je voudrais rendre grâce à Dieu et au président de la République Macky Sall, à mes parents, à mes collaborateurs, à tous les Sénégalais, à quelque niveau où qu'ils se situent, qui ont pu me soutenir pendant tout le temps où j'ai pu être dans le gouvernement du Sénégal. Je voudrais insister sur cet aspect qui est l'occasion qui m'a été donnée par le président Macky Sall à mon des postes de responsabilité régalienne et en même temps dans l'attelage gouvernemental au plus haut niveau de cet attelage Premier ministre du Sénégal. Je voudrais également dire que cela m'a permis de servir mon pays et de pouvoir donner la mesure de ce qui peut être à ma disposition et en termes d'expérience. en rencontrant aujourd'hui, dans le cadre d'une passation de service qui est empreinte de sobriété et de solennité, j'ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l'action qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là. Et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République qui, aujourd'hui, a la charge de mener les destinées du Sénégal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu dès le premier tour le 24 mars 2024. Nous avons eu à le dire, c'est le choix souverain du peuple sénégalais et qui vitalité de cette démocratie dont la trajectoire dynamique a pu se conclure par trois alternances en 24 ans. C'est une performance remarquable. est un motif de fierté pour notre pays, qui, à chaque étape, peut, quelles que soient les circonstances, choisir les dirigeants qu'il veut, à qui il confie les destinées du pays. Et je voudrais pouvoir dire que cela est dû aussi à la solidité de nos institutions, dont le bon fonctionnement a participé à cette élection transparente et apaisée mais aussi à la qualité de nos hommes politiques qui ont tous félicité donc les élus, particulièrement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais également le dynamisme de notre société civile et des différents acteurs qui ont été engagés dans le processus électoral qui a pu se dérouler dans les meilleures conditions et conditions qui ont amené une élection incontestable et incontesté au regard du fait que le résultat a été accepté par tous les acteurs politiques. Sur ce point, je voudrais vous dire qu'au moment de quitter mes fonctions, alors à la tête du gouvernement du Sénégal, mes pensées vont sur toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et la personne la plus proche, c'est évidemment mon épouse, mes enfants, mais également mes collaborateurs, les populations de Tamba qui ont marqué un soutien indéfectible à mon endroit, mais aussi l'ensemble du peuple sénégalais qui ont permis de mener ce travail-là. Et je dois le dire que je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part. Et aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité des destinées de ce pays, je demande aux Tout-Puissants de les aider, de les guider et de les ramener à prendre les décisions qui amèneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l'unité nationale, bref, de tout ce qui fait la force de notre pays, son trésor qui est la cohésion nationale. di di euh, tey jii bis bu rëy la ndax maa ngi ci primature ak le président euh, qui a inspiré le Sénégal parce qu'il a été le choix du attends maa ngi wax euh, en français je vais reprendre en wolof <laughs> bon tey jii maa ngi ci primature ak euh, le Premier ministre Ousmane Sonko ñu def li nga xam ne mooy passation de service def nañ ko dans la sobriété def nañ ko sans folklore ndax lu ci gën a am solo mooy di dañu war a jubli immédiatement ci liggéey bi di ko félicité ndax président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ko tab pour mu nekk njiitu gouvernement Sénégal liggéey bu am solo la te xam naa ne dina ko def niñ ko ko santé te ñaan lañ ci am mooy di yàlla dimbale ko assister ko pour mu jël décision dogal yi nga xam ne dina tax Sénégal gën a jëm kanam di féliciter le président Bassirou jomay fay ndax askan bi moo ko fal ci ay élection yi nga xam ne élection apaisée la maanaam dañ ko def amul benn coow preuve bi ñëpp ci d'accord ñi nga xam ne ay candidats lañu woon te ñi nga xam ne tamit eh, dañuy participer ci liggéey bi ci élection bi ba ñu am résultat bi dañu war a am mbégte bu rëy pour suñu démocratie ndax dafa wono ne que démocratie bi dafa am ay fondement yu dëgër ci fukki at ak ñeent am nañu ñetti alternance en 2000 2012 2024 wone na que démocratie dafa sàq fi wone na tamit que le peuple sénégalais dafa am maturité peuple bi nga xam ne askan bi nga xam ne mooy fal mooy foli te def nañ ko le 24 février 24 euh, mars te choix bi ci président Bassirou Diomaye Faye le tombé maa ngi bëgg euh, remercier le président de la République le président Macky Sall mi nga xam ne moom moo tab comme ministre jox ma ay ministères régaliens durant période bi nga xam ne maa ngi ci gouvernement bi ba nommé ma comme premier ministre du Sénégal di remercier tamit ñi nga xam ne yàgg na ma jàppale ci liggéey bi sama soxna samay doom samay xarit samay collaborateurs le peuple sénégalais en entier ndax soutenir nañ ma mais ñi nga xam ne tamit ñi ngi ci région de Tambacounda yàgg ma soutenir ci liggéey bi lu des mooy di ñu ñaan pour les nouvelles autorités premier ministre moo nekk sama wet yàlla yombaloon ko liggéey bi mu def ko ni ko peuple sénégalais bëgg pour ñu gën a dem ci li nga xam ne mooy le développement de notre pays et en même temps di ko ñaanal eh, ci liggéey bu mel nii

On est réunis aujourd'hui dans le cadre d'une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l'État, qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les différents régimes, et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes qui arrivent. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Donc nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant M. Sidiki Kaba et moi-même. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie Monsieur le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés je le félicite également pour euh, ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas, et surtout ces longues années de service irréprochable puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères ou dans d'autres activités. Et euh, en profitons pour euh, dire que c'est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l'État. Le deuxième peut-être, puisque le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions de président de la République. Aujourd'hui, c'est le chef de gouvernement et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour que, immédiatement après les, les fêtes de Korité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. donc ci gàttal ci wolof ñu ngi sant ñëpp yoo xam ni dañ fay teew tey ci li nga xam ne aada ci nguur gi ndax nguur moom. mooy loo xam ne dafay sax nit ñi dañuy romb di dem mais nguur gi moom day sax ba faw saa su soppi ku amee rek lu mel ni day am mooy ñi fi newoon yor ay ndombal tànk war nañoo jébbal lenge gi ñi nga xam ne ñoo yegg si ci cadre boobu lañ ko defee semaine passée diggante ñaari président de la république yi ñu def ko ci anam bu gën a rafet tey ñu def ko ci diggante ñaari élimaan jëwriñ yi moom monsieur Sidiki Kaba nga xam ne moom moo ne woon premier ministre ba tey ji ak ñu ñi nga xam ne président basiru Diomaye Faye daf ñoo tànn pour ñu wutu ko ci di ko gërëm nag di ko jaajëfal ci nit ñu dalalee tey moom ak ñi mu àndal yépp def ko ci anam bu gën a rafet ak ni ñu doxalee passation bi ci document yi nga xam ne defar nañ ko jébbal ñu ko may ñu ñu gis liggéey bi nu mu tëree di ko féliciter tamit moom ci taxawaayam ndax defe naa gën saa gàtt ay a ngi nii mu yor ay ndombal tànk jaar ci département ministériel yu bëree bëri te dégguñu ko fi ci lu dul liggéey gu rafet ak nekk au service njëriñu réewam di ko ñaanal yàlla continuer di ko xàllal yoon ba fépp fu mu rek mun faa def li mu doon def di ko félicité am équipe am yëpp li ñu wax ci moom it di ko wax ci euh, euh, le ministre secrétaire d'État muy monsieur Seydou Guèye xam ne teewe na passation bi euh, war a yeggali moom it ak ci koy wutu di rafetlu vraiment niñ ko doxalee tey di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum. oui ah oui. alors merci beaucoup. kon chers amis internautes Bour News euh, ki nga xam ne mooy Sidiki Kaba moom ngeen di gis euh, muy dem nii. Euh, Ousmane Sonko moom moo ngi na leen di duggaat euh, ci li nga xamante mooy biir euh, primature di bàyyi xam naa pour dem installé wu carrément ngeen gis ki nga xam ne mooy Sidiki Kaba mooy génn ni di dem ginnaaw bi nga xamante ni joxe na léegi ki nga xam mooy président Ousmane Sonko moo ngi nii di dem ci otoom Sonko moo ngi na leen di duggaat ci li nga xamante ni mooy ascenseur bi. Sidiki Kaba mooy noonu di dem. mais buur ba. mooy tàggatoo ak nga xam ne mooy Seydou Gueye ngeen gis ko noonu. Euh, chers amis euh, ni ngeen ko gisee euh, Sidi Kaba mooy dem noonu ak sa délégation motaar bi moo ngi koy yóbbu bi nga ginnaaw bi nga xamante ni def na passation de service ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ba pare mooy noonu di dem ak euh, li nga xamante ni mooy sécurité pour le moment euh, ki nga xam ne mooy Ousmane sonk nag moom euh, déggu na ci biir ginnaaw bi ko ki nga xam mooy Sidiki Kaba joxe lenge yi ba pare moom duggaan na ci biir xam naa nar a installé ci li nga xamante ni mooy bureau tàmbale liggéey bi. nga xamante ni askan bi ak képp ki doomu Sénégal tey yaa ngi ko ciy xaar ngeen gis ko mu nekk foofu noonu en attendant ñu mën a yeggali. ñu jublu ci li nga xamante ni D'accord, kon euh, chers amis internautes, World News, euh, vous l'avez suivi en direct sur nos différentes plateformes digitales, euh, Facebook, YouTube ak LinkedIn, Twitter. kon vous avez suivi li nga xam ne mooy les déclarations de la la première déclaration celle du premier ministre sortant maître Sidiki Kaba hein, la suivi de la déclaration aussi du premier ministre entrant euh, Ousmane Sonko euh, ngeen ko xam naa ci dañ leen ko daggalaat bu nekkee ne xaw ngeen a tardé live bi tuuti euh, ngeen mën ko suivre mais xam leen ne ki nga xam ne mooy Sidiki Kaba moom euh, def na passation de service ba dem yoonam euh, ki nga xam ne nag mooy Ousmane Sonko moo fi des pour le moment dem occuper li nga xamante ni mooy ses nouvelles fonctions de premier ministre du Sénégal. ana eh, ñàkkul ne doon xaar mu génn waaye xam naa du génn gum dana dem eh, ginnaaw bi ko Sidiki Kaba jébale dossiers yi mën a examiner dossiers yi eh, war a jublu ci li nga xamante ni mooy liggéey bi dégg ngeen ko tamit ci ni mu ko waxee ci déclaration bi ne ginnaaw wala balaay korte gi di balaa ñu gi nga xamante ni bu yàlla dafay jàmm ak salaam dinañ ko célébrer ci mercredi bi incha allah rabi dinañ def ñoom ñëpp seen passation de service bu ko defee ñu mën a jublu ci liggéey bi nga xamante ni ci la leen di askan bi yëpp di xaar ñu war cee waaw parce que daa bëri ñu war ñoom ñëpp liggéey ko ndax euh, li li ni nga koy faral di waxee yaakaar gi dafa bari ci mbir mi ci kanam tuuti aussi xam naa ne war ngeen a mën a suivre li nga xamante mooy aussi euh, passation service euh, ministère de l' intérieur aussi dégg na ci information yi xam jot nañ ko war na am 15 heures di ñàkk yeneen passation de service yoo xamante ne ñoo ngi ciy suivre ngeen war ko mën a suivre en direct ci Bour News la télé des grands événements kon xam naa bu ko defee mën nañoo décrocher euh, ba beneen yoon di leen wax ne bu leen fàtte activer seen euh, notification yi comme ça ngeen di mën a jot live yi en direct et en temps réel sur Bour News kon chers amis internautes Bour News je pense que tey euh, lii mooy li nga xamante ni moo xew fii ci euh, primature euh, mu nekkoon cérémonie passation de service entre Sidiki Kaba ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. ba tey jii nag ñuy wax ngeen di àddu ki nga xam ne mooy. Bassirou Kaba setaa ngeen ko génn na ki nga xam ne mooy euh, Ousmane Sonko ginnaaw biñ ko joxee léegi aussi moom yëgaan na ci kaw ba dugg occupé li nga xamante ni mooy ministère am war a jublu ci dossiers yi dossiers yu xaraw takku takku takku ndax euh, tey euh, li Sénégal xaar si ñoom dafa bari yaakaar giñ placé ci la nouveau président ki nga xam ne mooy bassiru Diakhar Diomaye fay te ki nga xamante ni mooy aussi Ousmane Sonko mi tey doon dépassation de service euh, jiite euh, parti boobu wala jiite woon ko d'ailleurs sax moo nekkoon toujours le président euh, Diakhar moo nekkoon nga xam mooy secrétaire général. non kon mooy li nga xamante ni mooy ngeen doon suivre en direct sur Good News je pense que chers amis internautes. Euh, loolu mooy tey information bi fi am mën nañoo décrocher ba beneen yoon parce que li wër ba wër mooy ki nga xam ne mooy Ousmane sonk wàccagul naa du ñàkk dana fi nekk ba ci kanam def euh, li nga xamante ni mooy étude dossier yi dalal aussi ñàkkul ne certains de ses collaborateurs te ki nga xam ne mooy le premier ministre sortant aussi ñàkkul aussi mu confier ko ci yenn ci ay collaborateurs am benn donte sax moom yàggu fi Euh, yàggu fi euh, mais euh, li ci mënta am mooy Sonko yéeg na ci bureau am ginnaaw bi mu yéegee ba ki nga xam ne mooy Sidiki Kaba jébbal ko dossier mi ñu wàcc def seen déclaration kab a génn dem yoonam génn dem ci ay activités am continuer ko. ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéegaat ci kaw xam naa ñàkkul pour xool li xamante examiner dossier yi nga xamante moom la fa fekk mais aussi waxtaan ay collaborateur ak euh, ci li nga xamante ni ci noonu lañ war a jëmee ci liggéey kon chers amis internautes Bour News nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur d'autres actualités mais aussi en direct en streaming euh, sur nos différentes plateformes Facebook YouTube Twitter et LinkedIn euh, merci beaucoup et très prochainement.